فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح يزيد فلا ت... والله بن ماي او بيك نوغو ساخ توغمako te rusumako wax ndax sama jëkkër gaañu ني 6 ans تي ren ما يوري اي جابور دي داوك نيوم ألم تر أن الرزق غاد ورائح غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد Euh, di leen nuyu yéen waa Kaffrine euh, tey association Sakku Yiw moom moo leen seet si lii ngeen gis fii nag suñuy loxo la jaar mais ay nit ñooñu ko jox ay nit yoo xam ne wóolu nañ ñu teg ko suñu loxo xam nañ ne nañ dem ci gox yi nañ dem ci gën a sori pour séddoo koog ñoom. donte ne li ñu fi andi bariwul su ko defee ku ci nekk rek mu daal di ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo tax mbir mi mën a nekk mooy ñi fa dugal seen xaalis wala képp koo xam ne rek loxoom dugg na ci ba tax ñu war koo mën a ñëw séddu ko waa Kaffrine. man maa ngi tudd Mamadou Saliou Sall man maay chef de service départemental action sociale bu Kaffrine lii nag damay jël kaddu rek ci tuuru préfet du département. te action boo xamante ne ñu ngi koy rafetul parce que Kaffrine parfois dañ koy que ñun yàgg nañ fi xam nañ Kaffrine wax dëgg la dafa nekk doole kon ñoom li def nii wax c'est un très bon choix te ñu ngi koy rafetlu d'abord féliciter leen ci action bi encourager leen remercier leen mais aussi tàllal la long parce que population Kaffrine dafa manqué ay partenaires dafa manqué ay partenaires bu ñu partenaire bu mel nii ñëw dat action bu mel action boo xamante ne en tout cas xeebuñu ko ça nous va droit au cœur pour choix bi nag ma lire liste bi en tout cas man aw ma ci benn xel ñaar je sais que c'est un choix boo qui a été très bien fait ñi wara, war a ñi ko te choix bi aussi defuñ def amuñ benn parparloo jëlu rek waa Kaffrine xam naa ne ñu bëri aussi ñi ngi jógee ci village yi. defal ngeen luñ loo xam ne lu ñu soxla la ah ku toll ci weeru koor nga dem yët ko dund defal nga ko lépp kon ñu ngi see kontaan bu baax a baax di leen sant di leen gërëm li ngeen bëgg yàlla leen ko yàlla defal réew mi yàlla wàcc fi jàmm wàcc fi xéwal wàcc fi teraanga ak naataanga ak barke. liire rek bëggoon nañ mu gën a continuer ndax Kaffrine ku nekk xam ne dañu néew doole te ñu ngi leen di xaw a gannaaw waaye li ngeen def na ngeen koo def fi mu waree ak ni mu waree wallaay ñi fi nekk ñëpp dañ ko soxla gis nga bu ñu jàppalantee ñi ñàkk duñu sonn su ma guddalee rek dinaa jooy te bugg ma jooy yàlla mi tax ngeen ñëw yàlla na leen yàlla fay bëgg nañ continuité nag ndax amuñu ndax man de dégg yàlla lii fi ma cekkatee yàlla rek moo xam fi ma di teg ndax man toog naa maa ngi yore jaboot ju ndaw boole ko ñàkk wér ñàkk am lu ma ko yoreel maa ko yoreel sama bopp am dimbalu jëbu ñi ñëw jullit yi su ma kayee maa ngi sol sama daal la topp ci biir dëkk bi sarax leen ma sarax leen ma lebal leen ma may leen ma lii laa dundee tey tey tey su bo ma ne la su ma ñibbee sama kër fu ma tëdd sax aw ma ko waaw fan yëpp maa ngi tëdd hôpital dañ ma sarax di ma jënd ay ordonnance kon tey su ma toogee ba ñu def lii maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla jàppale kontaan naa ci yéen trop na fi ma nekk nii fi ma taxaw ne sama tanki manu sax taxaw yàlla seet na ne liñ ma liñ lima pass paas ñew dem bu lañ mako sarakon pour ma def reer ki ma bend ci li jappal ma woo ma ko ma paas ko pass juroom ñet fukk de 100 cent francs léegi su ma demee ba yel yëluwaan fa pass ñu bindir ki la wa ألم تر أن الرزق غاد ورائح غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد ألم تر أن الرزق غاد ورائح غاد ورائح وأن الذي غد رزق يعود جديد فلن تؤمن المال قبل غد رزق يعود جديد